أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا Merci, Mme Daï. Merci, Mme Daï. Merci, Mme Daï. liguey bi moy sante yalla di di jëfee saa yore sabab fii wax ak yéen nag c'est le colonel Moustapha Dione président du ROCRIS moy introduire waxtan bi di ko introduire ci ay remerciements parce que wote ñu ñu la ñu amul fayet donc ñu jëk def rek mooy remercier la délégation générale au pèlerinage.

de tout temps de ay tel Sénégal ak la référence en matière de pèlerinage donc lépp luy def rek c'est pour que liggéey bi a jàpp mën a jàpp yoon di tëb di wax nag journaliste yi il faut que remercier la parce que lii moom vraiment dafa lii dafa dal xel lu woolee ngeen ñëw fekk li fekk liggéey bi vraiment jàpp ci liggéey bi ba nga xam ne rek incha allah yàlla yàlla dina ko defal

wax dëgg te liggéey bi moom ñaar nit ñoo ko yore Cheikh Bamba est le vice président c' le premier vice président de l'office moo def la version française incha allah Alaaji Baba Guèye Amadou Guèye Amadou Guèye Baba mooy la version wolof c' est le secrétaire général du la version wolof euh, Adja kii nag. Adja Moussa Adja Ndeye mooy MC bi mooy vraiment mooy organiser mooy organisation Adja Mbaye loolu merci pour votre présence. on va donner la parole à Nous saluons tous les publics présents ici. Les organisateurs privés du à travers le on convient les médias à ce point de presse pour attirer l'attention des autorités, des pèlerins, mais aussi des acteurs du pèlerinage à la Mecque sur les urgences de l'heure. Nous commençons d'abord par saluer l'étroite collaboration entre les autorités et les organisateurs du Hajj, collaboration qui a marqué le dernier pèlerinage et qui avait permis de trouver les solutions idoines aux problèmes tenaces, notamment la question du transport aérien que nous avions tous vécu ensemble. Nous précisons que les voyagistes privés convoient 11 000 pèlerins sur les 12 860 qui constituent le quota national attribué au Sénégal. Pour cette année, l'Arabie saoudite a déjà établi depuis le mois de juin le calendrier du Hajj qu'il faut absolument respecter. Ainsi, les opérateurs, toutes les opérations du Hajj 2025 démarrent ou ont été déclarées depuis le 4 septembre dernier et que les rencontres avec les commissariats généraux au pèlerinage devraient être clôturées au plus tard le 23 octobre prochain. Donc, on est à quelques jours de la clôture, n'est-ce pas, des rencontres au niveau de l'Arabie saoudite entre les autorités saoudiennes, n'est-ce pas, et les pays de la Oumou à partir du 19 février 2025, soit 10 jours, soit 10 jours avant le début du Ramadan, qui est prévu le 1er mars, les premiers visas devraient être édités. Ce qui est très important. Et ceci, donc ce fait, suppose qu'au moins deux mois avant cette date, deux mois avant cette date, les opérations devrait débuter, les inscriptions devraient démarrer, l'aviation ou la compagnie aérienne choisie, les contrats avec les logeurs terminés. Et là, c'est un point extrêmement important pour une bonne organisation du match. Il faut surtout souligner, dans le cadre de l'aviation, que nous ne pouvons pas signer les contrats de logement sans avoir de programme d'effort. C'est pourquoi les vagistes privés appellent à une ouverture des inscriptions le plus tôt possible et s'engagent auprès des autorités à apporter leur contribution et leur expertise à toutes les questions relatives à l'organisation du âge notamment les questions de l'aviation, donc de la compagnie aérienne, de la gestion de ce que nous appelons communément l'étape de Dakar. Donc c'est l'organisation des, inscriptions, de, l'enrôlement des pèlerins, de la gestion des transferts bancaires. Les transferts bancaires qui ont été un cas d'école l'année dernière, nous le savons tous, nous, nous qui sommes au cœur de la gestion des pages. Mais aussi la gestion du portail électronique qui aussi est le nerf de la guerre. Nous le savons tous. Il y a aussi le plus de problèmes de l'hébergement et de la restauration à Mouna Arafat. Mais nous tenons, nous en tant que privés, à apporter notre contribution et notre expertise à l'élaboration du cahier des charges qui définit les contours du âge de l'organisation du âge, particulièrement de cette année 2025. Nous prions le bon Dieu, donc nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que ce pèlerinage 2025 soit l'un des mieux réussis et que le Sénégal retrouve sa place. Parce que quand même, nous avons toujours occupé la place du leader au niveau du H en Afrique occidentale depuis la, depuis la, la, la, C'est pourquoi aussi nous prions le bon Dieu pour que non seulement nous retrouvions notre place, mais que nous soyons parmi les mieux classés, parmi les pays les mieux classés dans le cadre de l'organisation du Hajj et dans le cadre de l'enseignement islamique. Nous vous remercions de votre attention. Assalamu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar euh, am mbégte dajeeg yéen taskatu xibaar yi ci bis bi nga xam ni RENAFIS di bànqaas wala kuréel bi nga xam ne moom moo dajale organisateur privé yi yëngatu ci aj ñoo ko ameel tey pour waxtaan ak kilifa yi waxtaan ak ujaa ci ñi nga xam ne man nañu ren incha allah fas aji waaye waxtaan ak képp koo xam ni day yëngatu ci wàllu pàcc ndax xëy na jàpp nañu jot na dañuy tàmbali di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xam ni am nañ ak suñuy kilifa tàmbalee ci waa délégation général au pèlerinage ministère bi nga xam ne moom moo ŋànk lépp lu jëm ci wàllu pàcc ak kilifa réew mi ci longoo àndandoo

saay bu ñuy tukki di dem Arabie Saoudite négocier lu jëm ci wàllu aj bi ñu boole ci privé yi ñu bokk ci waxtaan bi ñu bëggoon xamal askan wi ne Arabie Saoudite na muy organiser aj dafa soppeeku dafa soppeeku ndax Arabie Saoudite tambali na liggéey bi depuis le 4 septembre biñu wessu depuis 4 septembre tambali tàmbali nañoo liggéey liggéey bi nga xam ne mi ngi jëm ci aju deux mille vingt cinq te ndaje yi nga xam ne Arabie Saoudite daf koy def ak dëkk yi nga xam ne ñoom ñooy organiser aj seen ndaje yooyu ñu ngi ci te danañ ko jeexal fii ak fukki fan juróom maanaam le vingt trois octobre bii ñu def na le dix neuf février maanaam bu desee fukki fan pour weeru koor ci la ñuy xam ci la lépp loo xam ne jëm na ci wàllu visa jëm ci aj bi ci lañ koy tàmbale di ko génne waaye ku ne visa wàllu aj mais balaa ngay génne visa faw fekk na am nga say ujaaj fekk na fay nga sa logement fa ngay dëkk ca Médine fekk na fay nga fa ngay dëkk ca Makka fekk na fay nga sa transport fay sa lekk fay sa dëkkuwaay mun naa ak Arafat ngay doog a mën a génne visa te booba ñoom ñu ngi ko natt ci mois de février kon xëy na ñu gis ni la ca des ci ab bëri moo tax ñun ñuy suggérer que ni nu ñu def pour mën a teel a inscription yi rek dafay gën a yombal mbir dafay gën a baax mbir xëy na fii ak ñaari weer gën ngaa bëri war nañoo mën a tàmbali inscription yi.

nek organisation bo xam bu mucc ayib Renafus di kuréel bi nga xam mo ngank ni ñi ëpp ci privé yi yéegul ci walu acc ni ko composé ay borom xam-xam lañu yo xam ko ci jël amna ñaar fu wala ñaar fukk juróom at d'expérience ci liggéey bi taxaw nañu vraiment pour ànd ak autorité yi ndax xam nañu fullaal bi ñu fullaal aj bi xam nañu ban daraja lañ ko jox

pour fay suñuy kër suñuy dëkkuwaay ak suñu yeneen service foofa lu jëm ci wàllu lekkin bi ak dëkkuwaay bi ci mun na ak Arafat yooyu yëpp mu nekk ay problème yoo xam ne pare nañu pour waxtaan ci ñoom sottante xalaat pour que ñu mën a am taxawaay bu gën rafet waaye fàttewuñu tamit li jëm ci wàllu cahier de charge bi nga xam ne jàpp nañu mën nañ ko gën a yeesal waare na fis pare nañu pour ànd ak

am réussite bu rëy a rëy rëy bi nga xam ne ñu ngi ko doon bàkkee Sénégal démb ak barke dem Sénégal taxawaat place boobu wa ma zalika alallahi bi aziz asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jafe ñu nekk ci Matam ak Touba yeneen gox yi nga xam ni xamuñu leen wala dégguñu leen dina ñaanal yàlla génne leen ci jafe-jafe may door sama kàddu ci ndigalu délégué général au pèlerinage docteur Aboubacar Sarr ak personnel bi yëpp jëme ci kanam yu tedd yi góor yu baax yi nga xam ne jàpp nañ ni lépp lu yëngut ci réew mi seen loxo war na ci dugg rawante nag pàcc bi ñu féete muy aj am kàddu gi fi jib ci njëlbeen ci ñaan wax si moom bi Abdoulaye Jamil wala Fatalakho la wax mooy fasanti ko jàppee ci buum bi nga xam moom noonu yàlla sant ñu man cee jàpp ba àgg ci moom ci ci wax doogu di gërëm waa Rénofis colonel Diome mi ko jiite ak góor yu baax yi ànd ak ñii nag ñooy ñi nga xam ni di olof di wax ku war togg leen mbaa sa gawar ñaaw ndax bu fekkee ni

wax ak ñoom ci fan la toll ak doxalin yu mu tëral ci fan la ko teg moo tax mu yabal ma ma ñëw tey pour fekkee jataay ma leen di wax nii ànd ak yéen neex na lool te jàppandi na ndax lëkkaloog boroom xam-xam bu xam yoon yu mu jëm ami pexe yu tax yoo xam ne day sell dëppoog diine ji nga xam ne mooy sunu diine lislaam ànd ak moom ci yoon bi nga xam ni mooy jëm tukki bi gën a neex bi gën a jub bi gën a rëy ci jullit dafay am solo ngay déglu ay xalaatam ak di ànd ak moom ci wàllu liggéey mbokk yi ñii nag mooy góor ak jigéen yi nga xam lépp lu ak ak màkk gi dafa am solo ndax ak màkk gi fi may jeexale ci wolof mooy ñetti ponk yi ko tëdd yëpp bu ci nekk laaj na ñu ànd ak ñoom ak ñu mel ni ñu bu njëkk bi mooy ak màkk diine bi quatre-vingt-quinze pour cent population Sénégal ay jullit kon képp kuñ ko dénk war nga waxtaan ak ñooy

te ba tey ñi ngi xeñtu yoon wu ñuy liggéey pour mën ko boole kon ñetti aspect yooyu bu fekkee dafa tënk ak màggal day laaj nit ñu yaatal suñuy man ak suñu ginnaaw pour boot képp koo xam da nga leen di gërëm di leen sax ci taxawaay ci kàddu di wax nii délégué nee na ba mu ubbee buntam bi muy doog a ñëw ba nga ubbe tëju ko ubbi na sax palanteer yi pour ku nekk ñëw parce que xalaat olof nee na ko sa xelum bopp doyul doyul nit foofu laa doon jaxle asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu